wa in yakun bu nekkee maa li nga xam ne adimal faa ñàkk na faaw baat dañoo xadafoon faa su nekkee doon lu ràggu muj boole ca niki siyatu ji firi maanaam aw melo wu wuteeg melo ya ca desoon wasi yu moom mooy xam nga ni ixtilaaful alwaan série wasi yu bu ñu ko waxee mooy série yoo xam ne comme legos yeeg yooyu nga xam ne day indi couleur yu ñu jaxase léegi siyatu nag wesiyun moo doon cosaan ñu xadafoon faaga remplacé ko xaawu taanis ni ñu def ci weedun masdaru waada ñu ni idatun siyatun li ñu wuute kale laamam dafa wér kii laamam ràgg nee na comme laam gi dafa ràgg te ñu xadafoon faaga soo koy soo koy def mansuub ilayhi kon fa jabruhu jàng jàng ko te mooy delloo si la nga xadafoon wa fatu ayni ak fata ayin ga ndax mujj gu ràgg ga nee na kooka day ultusima warlu nañu ko nga ni wisa wiyun ah fatxu aynihi mujj ràgg gee tax nga ni wisha wishi yun moo doon ci sax nga bàyyi faagi ci kasra ni wi ayam gi su ko noonu wa mujj sa topp ràgg tax nga ni wisha su ko defee xarafu ràgg woo mën a soppiku alif boo ko fa bàyyee wisha rek lay doon nga xal bu alif ga waaw ndax boo ko xal boo yaa kenn du ko mën a tudd ndax yaayee kasra yi nga ni wisha wii yun wuuteeg su fekkoon ni melul na siyatu nga xam ne moom laamam dafa wér ni ki idatun ni ñu def siyatun dong la ñu ko def waaw wala ñu xadafoon remplacé ko awtaani waaye kooka moom idi yun rek gayo doo fa jekki di delloo si ah kii kii nag moom bu melee ne siyatun fa jabruhoo jànga ba fatu ay ni ultus ah wal waxid adkur naasiban lil jamci in lam yushaabih waxidan fi lwa nee na soo bëggee askane jëme ci jam mufrad ma ngay andi ci li nga xam ne mooy mazhabul jumhur waaye doo jël lafz ba noona maanaa muslimunaak muslimiinaak soo boo jamu taksir laak jamu tasxiix ñoo ci yam muslimoona nga def ko aw tur tey turu nit wala turu dëkk jëf askane jëme ca muslimiyun ngay wax du dëgg du dëgg muslimaanin ba tey muslimiyun ngay wax muslimaatun muslimiyun ngay wax mu am lënt te duñu ko fa duñu ko faale du dëgg loo kutubiyun qiyaasam nga ni kitaabiyun ndax kutub jam'u la rusuliyun rusul soo ko defoon awtur askana jëme ca rasuliyun ngay wax mufrad ma ngay andi waaye dooni rusuliyun loolu mooy mazhabul jumhur dégg nga am na ñenn ñu ni nag kon it yunsabu ilayhi ala lafzihi kon amaa ñuy wax kutubiyun ak faraidiyun loolu dañuy xata ula ci arabiya arab du jëfe noonu am na ñu ko daganal ni kon kay bàyyi ko rek faraidiyu nisbatun ila faraid kutubiyu nisbatun ila al kutub awaamu naasi ñoom kutubiyu la ñu wax bàyyiwul kutub kutubiyu lañ ko wax waaye nee ñu kitaabiyu lañ ko waroon loolu nag in lam yushaabih ndéem niroowul ak waaxidan kenn fil wat i ca tër ba ndéem jamu bi niroowul ak mufrad ci tër bi su ko defee kon dañu koy bàyyi ca lafz ba rek duñu ko dindi ba tax na sax faraid ñuy wax ilmul faraid faraid dema dema dem ba kenn dootu konte jamo ja aw tur noonu rek la léegi niroo naag waaxid kon bu boobaa ñu naan faraid yi lu def in lam yusaabih waaxidan fi lwadci ndegam jamu bi ni ñu ko tëdde mujjul mel naka benn la niki lan baatu ansaar jamu naasirin ansaaru rasulillahi jamu la woon waaye léegi dooni lan saar ba kenn defe ni jamu la dañu defe turu mufrad la ñeel xabila boobu rek du dëgg kon mujj na di kon ansaari yu nga wax waaye dooni naasiri yu soo dee askan dootoo andi mufradu cosaan ma ndax ji jamu mufrad rek la nirool ci tëddin bi soo ne lansaar kenn du ci xoolati maanaam jamu ji ci jëkkoon te jamu la woon afaalun jamu na naasiri mooy la ni su niroog waaxit ci wat u nag ko kenn du ko delloo ca mufrad ba fa yunsabu ala laf ila lafzihi fa taqulu ansaariyun wa maa faacilin wa facaalin facil fi nasabin agna anil yaa fa qubil dégg nga wa facilun facilun maa faacilin ànd ak wasnu faacilin wa facaalin ak wasnu facaalin yooyu yett agna doy na anil yaa i walis yaa fi nasabin ci askan au lieu nga naan au lieu nga naan tey baziyun ci kuy jaay baz kuy jaay piis nga ni bazaas muy was na faal au lieu nga naan tamriyun ci koo xam ni da nga ko askane jëmee ci tamru ndax mooy métier am kon waxal taamirun booy askan jëme ci jaaykatu taw au lieu nga naan labaniyun waxal laabin ak taamir rek laabinun taamirun wala fa'aalin te ni ki tammaar ak bazaaz jaaykatu piis du dëgg wala fa'ilun ni ki nahirun nisbatun ila nahaar au lieu nga ni fulaanun nahaariyun nga ni nahirun nag layt lastu bi layliyin walakin ni nahir laa adluju layla walakin abtakir ah nahirun ay kojug bëccëg wàllu faa'ilin waaye nee na ca wa garartani wa zaamta annaka laabinun fi sayfi taamir wax na itam da'il makaarima laa tarxal li bugyatiha waqcud fa innaka anta taa'imu alkaasi attaa'imu saaxibu taam alkaasi saaxibu alkiswati foofu kooku au lieu mu naan taamiyun ak kisawiyun mu daal di ni taa'im alkaasi au lieu mu naan tamriyun ak labaniyun mu ne taabirun taamirun laabinun ah au lieu mu naan bazziyun fi nisbatun ila bay'il bazz maanaam piis nga ni bazzaazun wala nga ni tammaarun wala nga ni labbaanun ah su ko defee nag mu wax mu jàll wa gayru ma wa gayru ma aslaftuhu muqarrara ala alladi yunqalu minhu iqtasara nee na kat xayru ma le lu dul loo xam ne qaddamtuhu dawal naa ko ci bunt bii muqarraran mi lu ñu saxal leeral atteya mubayyanan axkaamuhu lu dul loolu soo ko gisee kooku iqtasara dañuy gàttañ lu minhu ci moom ala alladi yunqalu ca la nga xam ne moom la ñu toxale ci arab yuqtasaru fihi ala samaai lakin laa yuqaasu ala dalik loolu mel na na li ñuy wax nisbatun ila raqabati ñu naan raqabaaniyun te xam nga ni kooku raqabiyun moo qiyaasu woon wala shaar ku bare kawar ñu war ko ni shaariyun ñu ne shaaraaniyun raqabaaniyun nisbatun ila raqaba taxtaaniyun nis ak fawqaani taxtiyun ak fawqiyun mooy qiyaas waaye dañu ne taxtaani ak fawqaani moom dong nga gis ci téere yi dégg nga li azimi raqabati wa shaari wa nisbatun ila fawq wa taxt wala nisbatun ila dahri ñu war ni dahriyun ñu ni duhriyun soppi mask ak daal ga ci nasab dong kat te mooy nisbatun ila dahri looloo noonu lañ ko déggee ci waxarab ñu naan duhri mag mu gudd fan lool duhri yu lañ ko daan nisbatun ila dahri waaye shawaas gi mooy soppi gi ñu soppi baat bi te te waxuñu dahriyun te moo doon xiyaas na dégg nga wala nga askane jëm ci dëkk bu ñu wax marwa au lieu ñu ni marwiyun marawiyun la ñu waroon nisbatun ila marwa dañu waroon ni marawiyun ñu ni marwa ziyun dolli ci zay zay gi fu mu dëkk riy dëkk la boo xam ne bu ñu askanee jëm ca au lieu ñu ni riyawiyun déedéet dañu naan raziyun yooyu yëpp yuqtasaru minhu ala samaai wala yuqaasu alayhi loolu jaax na ko baabul waqfi muusar al waqfu تنوين نسر فتح نجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا ودندن من احذف حذف التنوين التنوين إثر فتح بدكيتي جناو فتح معنى دفني اجعل لاني دفل تنوينا تنوين دفك ألفا مي ألف حال كون التنوين إثر فتح سفكي التنوين أك فتاكو جيتو نكي رأيت زيداً ah nee na kon mooy le kalam mulhani waqif ala al mansubi minhu bil alif nga ni raaytu zayda noonu ngay wax ij'alhu alifan waqfan mbir mi ngay aji taxaw de ay xaala kawnika waaqifan waxdif xasaf ko nag tilwa gayri fatxin xasafal tanwin tilwa taali tilwa gayri fatxin gudi aji topp ci lu dul fata ba ma kasra nga ni raaytu jaa zayd ak raaytu zayd dégg nga واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار نانا الضمير سوچا دي تخو دنگا تمو مي ضمير جي داي ورا ام صلة دولك سو دي ضمير جي ام صلة نكي له اك به اك لها سوف يتخو احذف حذف الصلة غير الفتح صلة سلود الفتى وودون جوكو تدام تي له yaa nga doon jokk ci kasra ci bihi da nga leen di dindi nga ne la ak bi qadamu ah, rabbi nga taxawal fa sukkoon bu fekkee si la fata alif nga ba ko fa nga ne biha wa duhaaha bàyyi fa alif ga wa ashbahat idan munawwanan nusib fa alifan fi lwaqfi duunuha qulib baatu idan nag kooku nuuna ca mujj nuuna ca mujj idan boo koy bind ci arabiya du jógee ni da ngay toxal xattul qur'an xanaa arabiya rek la binde ko alif hamza zaal nuun idan noonu la baaxoo ah waaye nag niroo naag mun a wana nusib ci lafz ndax fataa gi rek a dawlu nuun gu sukkoon gu xafiif topp ca boo ne idan day daal di mel na dëgg lu ñu tanwin la ba tax na loolu andil na ko fa nuunu haa nuunam kuli ba danañu ko xal bu wax fan ci taxaw alifan muy alif soo ca dee taxaw idaa ngay wax ndax dafa niroog mun a wanan nusib te loolu boobu nirale moo dem ba ci nuunu tanwin xafiif soo fa de maanaa nuunu tawkit xafiif te mooy lu mel ni idriban kooku moom it noonu la gaa waxoon na ci buntam ni soo fay taxaw na nga ko def alif rek waqfan i kama taqulu fi qifan qifa idan it nga ni ida loolu nag xëy na mooy xikma saxaaba yi ba ñu bind alquran idani alquran yëpp ñu binde ko alif gisoo ci alquran benn idan bu ñu def nuun waaye boo génnee alquran dootoo gis idan judul nuun la ñu koy bind ndaxte nag moo doon bindinu cosaan moom la ni ah ah wa asbahat niru na idan lu mu niru mun a wanan lu ñu tanwin loo xam ne nusiba dañ ko nasab niru googu lu ñu tanwin tax na fa nuunuhaa nuunam xuli ba soppi nañu ko alifan fil waqt wa xadfu yal manquusi di tanwini ma lam yunsab awla min subootin fa alama nee na bu dee yaawu manquus te muy borom tanwin ndax laaful maanaam ndax yorul al ni ki qaadin ak raamin yaa u manquus la qaadi ak raami su taarawul nee na boo fee taxaw xadaf yàgg nag mooy gën yàlla moo gën rafet bàyyi ko nga ni marartu bi qaadin dégg ak jaa a qaadin nee na nga ni marartu bi qaad jaa al du dëgg jaa al jaa a raaytu maanaam jaa a qaad marartu bi qaad comme qaadin dañ ko daan tanwin amul alif ak laam ndax nakira la nee na kon xadaf ga noonu mooy gën a rafet nga ni ma maratu bi qaadi ak jaa ak jaa qaadi nee na loolu dagan na sax de waaye rafetul xadafoon ko moo gën a kii dégg nga fekk nasab bu ñu ko suñu ko nasaboon kay ni ki raaytu qaadiyan kooku ni ñu waxoon alif rek nga fay taxawe maalam yun sab fekk nasab bu ñu ko bu ñu ko nasabee kay waqafta alayhi bil alif moo gën xasaf gaa gën yàlla subóot ga daal wa xayru di tanwini man xusma dul borom tanwin ni ki jaa al qaadi raaytu al qaadiya marartu bil qaadi kooku bil aksi moo ne ca safaan kooku saxam moo gën a awlaa moo gën rafet jaa al qaadi bàyyi fa yaaga moo gën marartu bil qaadi du dëgg bàyyi fa yaaga moo gën a jaadu du dëgg amaa bu ñu ko nasabee taxul ñuy wax du dëgg ah moo gën a moom nag kon mooy safaan ba moom bàyyi ko faa gën ah xasaf gi dagan na bu la neexee nga ni jaa al qaad marartu bil qaad waaye rafetul du dëgg dégg nga wa fii naxwu murin luzumu raddil yaqtu baat bu mel ne murin lu mu doon ismu faa'il fu lu doon cosaanu madda bi min ar ru'yati seetal baatu ru'yatu boo xam ne léegi genn raa dong foofu mujj ci xarafi cosaan dégg ndax miim mi miim mu ñu daam mii dikk ci ismu faayil ya la maanaa soo bëggee raa gis na nga bëgg koo taadiyaal ni wane na araa ngay wax dégg nga raaytu gis na araytu wane naa ah lu doon cosaan ar aytu afaaltu raa raaytu mooy faaltu araytu mooy afaaltu ar aytu moo doon cosaan afala ismu failam lu mu doon doon fàtte ngeen ko mufilun kon murun lu doon cosaan mur iyun min ar aytu jooju nga wax araytu xasaf googee ca feel ja moo dikk ba ci ismu faayil ji kon mur iyun la woon du dëgg nga xam ni kon man xuus na ni ki qaadi nag raabi su ko defee la taxoon ñu xasaf ayunu baat bi ci raa ci ar aytu ñu naan ara te ar a moo doon cosaan loola moo ko topp kon muri mur i moo doon cosaan mur i kasra ga la ñu jox raagi xalaf hamsa ga mu des muri rek léegi kon soo fay taxaw ci muri soo andiwul yaaga laam ga soo ko dellusiwul xanaa ne mur rek waaye loolu ijxaaf la kalima boo xam ne benn xaraf dong ci xarafi cosaan yi moo fa des kon raagi rek ka fi des ci cosaani baat mim gi moom xam nga bi mu doonee ismu faayil af'ala dong la fi ñëw loolu nag ijxaaf googu nag lor baat bi lor gu mujj googu nag la ñuy bañ booy taxaw nga delloosi ko moom la ni wa fii naxwi muriñ ci lépp loo xam ne wenn xarafa des ci xarafi cosaanam kooku uqtufiya xeñtu nañu fa lu suumu raddil yaa i war a delloo si yaaga doon làmbaat faw uqtufiya xeñtu nañu ko kon muri ngay wax du def taanis min muharraki sakinhu aw qif raima taharruki nee na lu dul haawu taanis ci loo xam ne borom masque la bañ a doon xarafu ràgg maanaam bañ a doon lu sukkoon lu dul haa u taanis ci loo xam ne mutaxarik la woon sakkin hu nan ko sukkoon soo fay taxaw borom haa u taanis nag dégg nga moom dañu koy soppi dañu koy remplacer haa baqaratun nga ni baqara waaye dooni baqarat danañu ci dikk ci lu chaage yi ca am liñ ca dégg ci lu jaarul xiyaas na nga ko sukkoon dul ha u tanis bu dee ha u tanis ah bu dee ha u tanis maanaam ndiki baqaratun kooku moom da nga koy maanaam doo taxawee taagata boo dee jàng di was luy dem taa ngay jàng waaye booy taxaw moom da ngay koy ibdaal ha moo tax sax bu ñu koy bind ci foo ko fekk ci asmaa yi ñaare ci ëpp dañu koy bind ha na nga ko sukkoon sukkoon benn la ci meloy waqaf aw qif wala nga taxaw fa raima taxarruki mbir mu nga di aji sàkku ji maska ga maanaa raima alxarakati di aji mel ni ku doon dab maska ga di ko sàkku ka andi mooy bi antaatiye bi baadi alxarakati doon al baax maanaa da nga cay andi tuuti xadaf la ca des ñu di ko nattaleeg yow mu indi soon sulusu xaraka ga bàyyi ñaari sulus ñu di ko wax rawm ndax dafa mel ni anta taruumu an taatiya bil xarakati kullihi summa taktafi bil baad maanaam xeeti sukkoon juróom yi la bu dul boroom haa u taanis haa u taanis moom ibdaal lay doon da ngay wàcc taaga indi haa aywa beneen bu dul moom nag juróom daje na fa benn nga taxaw ci sukkoon wala ci rawm wala ci ismaam wala ci tadif wala ci naqlu juróom yooyu daal mooy xeeti waqaf mu ni nag lépp loo xam ne mutaxarrik la woon te du xaa utaani sakkinu sukkoon ko benn aw qif wala nga taxaw fa raima taxarruki di aji sàkku maska rawm rawmu nag maska maanaam damm fata kasra mooy rawm waaw su ko defee yëpp danañu ko def raw bu fekkee ne nag ci arabiya la amma bu dee ci qiraatul quraan ñoom raw mu duñu ko daganal ci lu dul ci dam mbaa kasra waaye daganaluñu ko ci fata ndax fata dafa woyof woyof goo xam ne soo bëggee andi soo ci bëggee andi benn somp bàyyi la ca des moom bu naree dikk tuuti lépp day dikki ñaare moo tax moom duñ ca def raw ñoom quraaw yi waaye ar ahlul arabiya ñoom daganal nañu raw mu ci ñetti maske yi dégg nga ñaara googu wax nañu sukkoon wala raw aw asmami dammata wala nga li ñuy def li ñuy wax ismaam ismaam gaa foonal rek lay firi ci ku doon firi luxa waaye bu dee fii leneen lan ci jub ismaam mooy da ngay mel ni ku taxawe sukkoon ba yeggal yëkkati say tuñ ku la seen defe ne ak dàmm nga tudd fekk ni ñuy tudde dàmm nga def say tuñ waaye fekk na tudd nga taxawe nga fekk na sukkoon nga baat moom la ibnu barri ni wa sifatul wa wa wa sifatul ismaami itbaaqu shifa ala sukkooni wa dariru la yara nee na mooy li nga sukkoonee nga def nii say tuñ mel ni ku ni ah boo nee tey nasalal mataru nga ni nasalal matar seetal ar laa wax waaye boo ma séenee sama tuñ da ngay defee ni wax naa ni ru ndax tuñ yi dafa jóg loolu kat mooy ismaam loolu nag ci dàmm mbaa kasra déedéet ah maanaam ci dàmm nga koy def laa ni wa sifatul ismaami itbaaqu shifah ala sukun wa dariru laa yaraa nga ni nasalal matar aw ashmim wala nga ismaam dàmm dàmm la ñuy def ismaam mooy ni nga koy da ngay tudd sukkoon yëkkati say daal tuñ kenee na gumba du ko man gis maanaam gumba du ko man gis mooy bi maanaam lismaam amul baat booy dégg yow sukkoon rek nga dégg waaye kon ci melaw yi nag nga yëkkati say tuñ loolu ku gumba moom dootu xam da ngaa ismaam wala déet ndax sukkoon kii gis nag bu la xoolee xam ni def nga ismaam dégg nga ni nu wax loolu mooy ismaam nasala boobu ci xool nga koy xamee ci tuñu kii wax waaye doo ko xam ci wax ndax sukkoon ngay dégg aw ashmimi dammata bi an taqifa ala sukkooni wa tarfau shafatayka ka annaka tantiqu bi damma loolu mooy ismaam ci dàmm rek lay am na aw qif mbaa nga taxaw mud'ifan di aji ful ful xaraf wa ni ki nasalal mataru nga ni nasalal matar kon sadda nga raak looloo xeetu taxawin la waaye loo looy tadif nag du yëpp araf de maa lay sa hamsan lu dul hamsa hamsa diis na diis goo xam ne te buñ ko sukkoonee mu gën a diis boo ko dee tadif sukkoon ngay jëkk an tadif fokk mu ànd ak sukkoon shadda shadda sukkoon lay doon kon bu dee hamsa moom kenn du ko kenn du ko tadif ndax da li siddati siqal xam nga hamsa moo gën a diis xaraf yëpp kon nag ka di ko sadda te mu tadif mooy sadda kenn du ko sadda kon nag na fekk du hamsa aw alilan du xarafu ràgg itam bu muy xarafu ràgg lu mel ni jaa alqaadi yi kenn du sadda yàgg ci tadif waaw bu dul hamsa du lu ràgg beneen sart ci tadif mooy inqafaa ndegam dafa topp muharrakan lu ñu maas su toppee ci sukkoon kenn du ko tadif du dëgg lu mel ni ki lu mel ni ki qadrun wala nasru ah kenn du tax mën nga taxawee ci raagi sukkoon dégg nga mën nga ca taxawee lismaam de bu fekkee dàmm la wala rawm waaye nag mënoo faa taxawee tadif ndaxte sukkoon a daw nas soo ci bëggoon teg raagu ñu sàdd doo ko mën moo tax mu ni in xafaa ndeem topp na muharraka mu des benn naqlu waqfu bi naqli du moo des kooku nag mu ne wa xarakatin inqula li saakinin taxrikuhu la juxtal wanqulil xarakat su fekkee maske yi nga xam ne mooy dam fata kasra jatti maske yëpp des na leen des na toxal dam des na fat toxal fata def na taxal kasra amma dam ak kasra moom amul benn wax amma fata nag naqloom danañ ci dikk wax ci madhabu basra ak madhabu kuufa moo tax wan xul toxalal ci sa waqaf xarakaatin ay xaraka ñett yëpp li saakinin de jëme ko ci sukkoon goo xam ne da koo dawlu woon goo xam ne tax niki bis sabri nga ni wa tawaasaw bis sabir gis nga kasrak raaga nga toxal jox sukkoon gi wér gi ko dawlu woon li saakin ñeel aji sukkoon joo xam ne taxriikuhoo maasam lan yoxdara dee su ko tere ni ki misaalum bis sabir baa moom manees na ko maas manees na ko maas lu dëgg su fekkee qadrun la man nga ne qadur toxal dàmmu raaga indi ci xaaf gi ko dafay mujj sukkoon waaye nag loo xam ne taxriikuhu maasam lan yoxdara dee su ko tere maanaa yumkinu taxriikuhu wuteeg alif lu mel ni ki insaanun jaa insanun dàmm googu mënoo koo tox di jox alif alif nanguwul xaraka wala muy xarafu ràgg waaw wala yaa kooku da day diis gann mooy tax lu mel ni ki yukadibuuni nga bëggoon a toxal kasra gi jox waaw wow saakin la waaye te taxriikam itam tereesu ko lan yu maanaam xayru xayru maxdur yumkin walakinahu saqilun jiddan moo tax kon bon daal bu muy alif ndax li ndax taazur bu muy waaw ak yaa li siqal bu dee leneen nag nga mën koo toxal ma ni woon nag xarakaat yëpp la wax aywa waaye nag nu wax ci mazhabu kufa nu wax ni fata moom kufa ak basra wuute nañ ci waa kufa ñoom danañu ko toxal maanaa taallamtu l ilma bu dee waa kufa ñoom danañu ko daganal nga ne taallamtu l ilam fataag mim ma toxal nga ko andi laam gu sukkoon gi nga xam ne taxriikam xayru mamnu bu dee waa basra nag duñu ko def lu tax te mu jàppandi da cay am mansuub su dul su melul ne al ilma nga xam ne dafay muarraf bi al xanaa doon nakiraf ni ki yow mu ni taallamtu ilman bi tanwin alifu tanwin googu soo naqloo yalzamu minhu xasfuhu kon fokk alifu tanwin gi da nga koy dindi taallamtu ilman su dee waa mazhabu basra ñoom ñu ni taallamtu ilam ndax fataa la woon wàcc nañu kon xarif ga loolu nag la waa ko basra bañ waa kuufa nag daganal nañ bu fekkoon raaytu bakaran waa kuufa daganal nañ nga ne raaytu bakar dégg nga xasab alifu tanwin waa basra nanguwuñu ko waaw lu tey ñu nangu ko nag ci lu mel ni taallamtul ilma ndax moom amul woon alifu tanwin ñu ni maanaam li yajriyal baabu ala sananin waxid comme fataa la rek ñu bañ a am fataa gu ñuy naqlu geneen fataa gu ñu dul naqlu ñu faf bàyyi fataa ñoom rek bu dee fataa duñu ko tax ñoom itam ci fan bu dul hamsa deesu hamsa tax na ñoom lu mel ni yuxrijul xaba fi samawati wal ard ñoom ñëpp danañu ko naqlu waa basra dagal nañu nga ne yuxrijul xaba dégg kooku moom ndax soo ko deful bëgg a sukkoon day diis lool ba jéggi daye sukkoon hamsa gi rawatina bi ko sukkoon dara daje daje dawloo soo bëggoon ni kooku moom d'accord nañ ci ñoo waa ko fa